asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi dolli sant suñu boroom tabaraka wa taala ni mu yellee ci jëmmam ji te as njaamam lott ci matale ko di julli tey sëlmal ci sangum ñaari way ndijji bopp yi sayidul kawnayni wattaqalayni walfariqayni min urbin wa min ajami sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallim di yeesal suñu pas-pas ak suñu jaayante ci sëriñ tubaa xaadimul rasul di ñaanal cheikh mouhamadul muntaqab ni cheikh mouhamadul bachir mi nga xam ne moo amee jataay maam cheikhul xadim di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko yàlla mottali mboolem ay naalam nay naal di yeggalee tey naalaat di yeggalewaat na sax ci naal ak di sottal ñun ñu koy seere ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi nga xam ne moom la ñu yàlla boole mooy nuyoo islaam lislaam nuyoo boobu nga xam ne moo tàmbalee ci jàmm te jeexee ci barke nuyoo boobu nga xam ne ëllëg buñ dajee aljanna moom la ñuy nuyoo te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nuyoo boobu ñu nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom la ñuy nuyu nuyoo mbokkam ma nga xam ne moo nekk fatiwaa woon ak Cheikh Aboubacar Sy Mansour di ko ñaanal yàlla yàggal ko yàlla wéral ko yàlla mottali mboolem ay naaram yi nga xam ne euh, amee na ko ci usra malikiya waaye ci tarixa Cheikh Ahmad Tidiane Cherif radiallahu anhu di ko ñaanal yàlla sàmm ko yàlla mottali mboolem ay naaram nuyo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu Léona Niassène jox ko Baye Cheikh Ahmed Tidiane Niass di ko ñaanal moom mboole njabootu maam Abdullahi gi eh, yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla mottali mboolem seeni naal te sunu borom yàggal ko fi mu yàgg jiite njaboot waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu it Medina Baye jox ko Cheikh Mahi Ibrahim Niass di ko ñaanal moom it yàlla sàmm ko yàlla aar ko yàlla mottali mboolem ay naalam moom mboolem usra Ibrahimiya waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu Canaba jox ko Baye Assane Seck di ko ñaanal moom it yàlla yàggal ko yàlla wéral ko ba mottali mboolem ay naalam mook mboolem ak njabootam ñu ànd ko waaye boobu nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy yóbbu eh, Njaasaan jox ko Cheikh Bekaay di ko ñaanal moom it yàlla yàggal yàlla wéral ko yàlla mottali mboolem ay naalam moom la ñuy yóbbu it fa kër maam Cheikh Omar Fouti jox ko maam Thierno Basir di ko ñaanal yàlla yàggal ko yalla wéral ko yàlla mottali mboolem ay naalam waaye nuyoo boobu ak ziyaara boobu moom la ñuy jox mboolem umma islami bi waaye moom la ñuy jox mboolem euh, doomu aadama yi fu ñu mën a nekk di dégg suñu kàddu moo xam ci biir réew mi la moo xam ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu fi ñu leen baaxoo nuyoo seen rajo réew mi wala seen télé réew mi TV yéen ñi nga xam ne yéen a safoo saxoo ta ko topp ci mbooleem ay programme am rawatina seen programme émission keppaaru mag ñi di am dimanche bu jot fii ci immeuble alxaaji Mouhamadou Lamine Bara Mbacké seen télé Rewmi TV waaye ngeen man di ko topp it ci seen rajo mi FM 97 point 5 muy am dimanche bu jot 22h jàpp minuit ngeen baaxoo ko ànd ak seen mbokk Serigne Bara Mbacké euh, di ñaanal bu baax a baax a baax kilifa gi it suñu borom sàmm ko muy alxaaji Mbagnick Diop ndax bu ñu mënee yëkkati ay kàddu ba ab jullit mën koo dégg mën koo jariñoo suñu borom ci moom la ko jaaralee te peccum liir bu neexee ndey jaay jàpp ca wagg ya noonu lañ koy ñaanalee ki nga xam ne moo jëwriñ ci alxaaji Mouhamadul Moustapha ni ma koy waxee waxtu ci ne ki ci gën a kawe ba ci man mi ci gën a suufee maa ngi koy ñaanal ñëpp. xam ngeen ne seen émission keppaaru mag ñi saa yu ñu fi teewee li ñu ko baaxoo amee mooy suñu mag ñi nga xam ne la yàlla yónni woon yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ñoom ñoo ci bay waar wu rëy a rëy waar ci bay mooy ba ko yàlla joxee yonent bi aleyhi salaatu wa salaam saxaaba ya la ko bàyyee. saxaaba yi bàyyee ko taabia yi taabia yi jox ko taabia taabia yi taabia taabia yi topp joxe ko noonu lañ ko jokk-jokkalee ba ci suñu mag ñi nga xam ne ñun dañoo judd doon ay jullit lu ko waral mooy ñoom garde gi nga xam ne garde nañ lislaam ji waaye liggéey gi nga xam ne liggéey nañ ko lislaam ci taxawu ko ci fànn ku ci nekk bu jaree bindi téere ñu bindi téere su jaree jàngale téere ñu jàngale téere su jaree yi taxaw seenu njaboot ngir ñu doon ay jullit ñoom def nañ suñu mag ñooñu nga xam ne ñoom lañ xam fii ci suñu réew wala sax sax ci réew yu ñu soriwul liggéey bi nga xam ne liggéey nañ ko lislaam seen émission keppaaru mag ñi suñu mag ñooñu lay fàttaliku ci anam yu wuute nag benn ñu fàttaliku seenu dund fu ñu ganee àdduna lu ñu jëf ci wàllu xam-xam wala sax ñu jël lenn ci seeni mbind teg ko jàngataat ko def nañ ko fi ay yooni yooni yooni yooni yoon tey nag ki ñu indi daa spécial parce que it euh, bu dee ci wàllu diine euh, da ko mate bu dee ci wàllu xam-xam da koo mate bu dee ci wàllu liggéey lislaam da koo mate waaye bu dee ci wàllu ak bi day moom la ñuy wax mooy baabul muridin mooy a Cheikh Ibrahima Fall Lampo kooku la ñuy waxtaanee kuñ ci war a àndal mooy Serigne Mouhamadul Moustapha Diop moom almarhum Baye Ndiaga Diop mi nga xam ne ku ñu xamoon la ci waaru yi di ko ñaan sunu borom tabaraka wa taala gën a seral ab tëdduwaayam waaye wanale ko sëriñam ba ki nga xam ne moo doonoon wéeruwaayam a Cheikh Ibrahima Fall waaye mu wanale ko Cheikhul Khadim di ko ñaanal yàlla dolli ko. yërmandi waaye dolli ko leer waaye dolli ko barke fa mu nekk euh, Cheikh Mouhamadul Moustapha Diop moomu la ñu àndal tey incha allahu taala ngir fas yéenee waxtaanee euh, Cheikh Ibrahima Fall xam naa dama koy jox mu daal di nuyoo rek incha allahu taala ñu daal di dikk ci lubbul mawduu bi incha allah Cheikh Mouhamadul Moustapha wala tatafaddal mashkura aouzu billahi a asheytan rajim bismillahi rahmani rahim waftax lana kulla baabin kunta fatihu li a min alxayraati min charri zi xasadin wa sharri sihrin wa sharril xalqi insihim max jinnihim wa zawaati sunni allah maha balaa'i wa maha amraadi wa wirida tanxaadu li ahraadi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi jël suñu nuyoo di jiital nuyoo boobu suñ muntaxal Bachir Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal jàmbaaram yi it di sëñ am di moodu mbend yàlla na ko suñu borom yàggal ko te may ko wér ak kàttan ci barke maamam bi di siyaar it xalifa sëñ Cheikh Fall Baye góor di suñ seex Ndigal Fall su ma ko tuddee rek tudd naa ñëpp di tudd it sëñ Cheikh Touba Sam mi nga xam ne mooy sama kilifa Baye di sama kilifa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak di siyaar it di la siyaar bu baax Mbàkke Bàll di la jox sa wàccuwaay ci dalal gi ñu dalal di siyaar it suñ baay bi nga xamante ne mooy Baye Makhtar Diop su ma ko tuddee rek tudd naa askanu lébu gépp fépp fu lébu nekk rek ñoo ngi lay siyaar te di la mm-hmm. jox sa wàccuwaay ci mm-hmm. turu Baye Matar mi mm-hmm. di ñaanal bërëb bi it suñu borom def ko mu barkeel te am tawféex ci barke Cheikh Mouhamadul Fadel Mbakke ci barke Sëñ Baara Mbakke di sant bu baax a baax nag ci invitation bii nga xam ne ñoo ngi ko jëmale ci jàmbaarum lislaam bi nga xam ne lépp moom di ci santaat bu baax di ñaan nag suñ borom defal ñu fatxu ak tawféex ba lii ñu koy waxtaanee ñu am ndimbalam ca moom ba mën ci yaatal lu bari bisimilah Mbacke baarakallah sëriñ Mouhamadul Moustapha nuyoo bi jot na jotale na noonu la ñuy ziare sëriñ Makhtar Diop sëriñ Makhtar Ndiaye Diop moom nga doon wax baarakallah moom mi nga xam ne waxtu ci ne émission bi moo koy coordonné ci mboolem invité yi nga xam ne ñoo fi jaar moom di ci liggéey liggéey bu rafet rafet rafet rafet moo ko Abdoulahi Ndoy ñoo ngi leen di ziare bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ak tawféex mm-hmm. euh, Cheikh Moustapha xam naa ne tey ni ma ko waxee rek incha allahu taala ki ñu fas yéene waxtaanee mm-hmm. ku spécial la li tax mu spécial mooy que ne baabul na lañ koy woowee mm-hmm. liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéeyal na ko lislaam waaye liggéey bu rëy bi nga xamante ni suñu borom tabaraka wa taala euh, taw maanaam suñu borom tabaaraka wa taala jaareele na ko ci. Mm-hmm. ci ci niñ ko gën a xamee. Mm-hmm. muy usra baay faaliya mm-hmm. xam naa loolu danañ ci dikk sax ci geneen waaye li ñu bëgg a njëkk a xam rek mooy que ne suñu borom tabaaraka wa taala ni mu baaxoo def ab yónenteem bu koy yónni. da koy waajal ni mu koy waajalee mooy daf koy waajal ci ay wéy jur. ba nga xam ne kenn du am génn wet guñ ko man a jamee mhm. su noppee nag waajal ko ci ay jikko mhm. waaye nag waajal ko ci xam-xam mhm. euh, su ko defee mooy tax li muy réalisé saa yi ko réalisé buñ ne diwa ko réalisé rek ñu ne nii rek la mën a demee euh, baarakallah Cheikh Ibrahima Fall foofu la ko suñu borom jaarale mm, fan la ko suñu borom jaarale ci wàllu ay way jur yu góor ak yu jigéen ak kañ na gane àdduna ak fan la jàng jaar ci wàllu xam-xam alhamdulilahi rabbil alamin Mbàkke ñoo ngi leen di nuyu bu baax laata may dellu ci question bi damay sant ñoo xam ne waruma leen fàtte. Mm-hmm. muy sama mbokk taalibe yi ma àndal ci sëñ Amar. Mm-hmm. si soxo bu ma ko tuddee rek. Mm-hmm. tudd naa daara ja nekk biir kër parcelle ga yëpp. ci unité sept. di talaata yi maam Cheikh gi. jiital Bayri Diall bu baax. jërëjëf ak mboolem ñu ko bokkal. di sant bu baax. laaj nga lu am solo. lu mat a laaj. Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridine. Cheikh Ahmadou Rokhaya Fall. mooy baayam. Ahmadou Roqaya Fall. waaw mooy baayam. baarakallah. maam Seynabou Ndiaye di waajuram. maam Seynabou Ndiaye baarakallah. <laughs> di waajuram. Mm-hmm. ñu bokk ci askanu njare gu tedd googu. Mm-hmm. ndax suñ borom. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee la. su demee ba ci biir dana gën a leer. ndax sëñ Cheikh daf ne. baay bu nekkul ci yàlla. munul am doom ci yàlla. lay ndeysaan lay lay nekkul ci yàlla munul am doom ci yàlla sëñ Ahmadou Roqaya Fall dañ ko fekk mat lim doom. aarakallah mat ko ci lépp ndax boo demee ci fii renseignement wu tubaab yi mhm. dañ lay wax ne Cheikh Ibra daan na jàng alxuraan mhm. daan na bind arab mhm. te ku yër jësbul murit googu war nga xam ne du jaahil ci askan wu tedd googu nag la feeñ waaye nag askan googu laata mu fa feeñ dafa moom ak ku baax ka ca azal lañ tase daf ne ku baax gi feeñal askan boo xam ne kenn bugg cee bokk ma feeñ askan boo xam ne léppi buur lañ ma wane leen ne duñ dara. Hmm. ba ñu xam ne topp rek kay maye dara. askan boobu. nga ne dañuy ku baax ki waaw feeñal ci askan boo xamante kenn xamut. kenn bu kenn xamul. Hmm. danaa la wax lu tax. Hmm. ndax jamono jooju askanu Mbàkke. référence yi ma lay wax nag. seen jaga mu baax ma. nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci yoonu. ndeysaan yàlla du ma ne sama baay bi. baay bi la. ndax liggéeyal na sëñ Cheikh Fall. Mhm. ba am ci ngërëmalu Cheikh yi. baarakallah. Mhm. nee na foofu la sëñ Touba feeñee ndax askanu Mbàkke bu njëkk. Mhm. ne woon alliwa rek lañ am. ak jàng rek lañ am. waaye ndekete boobu suñ borom. mu ngi ciy nëbb sa maam ju baax ji di xaadimal Moustapha dafa bañoon kenn rax leen. moo taxoon ñu ne woon bu njëkk ñii ku leen dugg alliwa rek ngay am ci ñoom. ndeysaan suñ borom woddee leen noonu mhm. ngir xaadimal Moussa mi war a ñëw ci si lay ndeysaan mhm. Cheikh Ibra nag mu feeñalee ko ci askanu njare moo xam ne dafa fekkoon ñu dooni buur doon ñu mhm, kamal mu wane leen ne lii li muy baax baax baax am na lu ko gën toppee koy ma toppee ci jëriñe nee na looloo tax muy wax ne maa xàmmee ker ci guddi nee na Maam Mor Anta Sali mu baax mi ñu jur ñëpp ay jant lañ nee na waaye dafa amoon jant ju leen ëpp doole di Ahmadu mm-hmm. te sañu wax ne maa ngi nii mm-hmm. nee na nag kon nag booba suñ fa àggee gor ni moom moo sañoo wax ni kii gor la jàpp leen baarakallah mm-hmm. léegi nag nee na ba ñu jugee ci suñ borom suñ borom dafa xool ne ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam alayhi salaatu wasalaam wuutuwaayam munta ñàkk wuutuwaayam boobu mooy xaadimal Mustafa baarakallah nee na suñ borom moo ne tuqeet ci dënnam daan ne Ahmadu demal woote Mm-hmm. waaye nee na bi mu doxee juróom-ñaari jéego dafa dellu si waat ne suñ borom mën naa woote mm. waaye mënumaa wane ana naka lañ may toppe mm-hmm. nee ci la suñ borom mm. fabaat mm. jëmm rocc ko ci biiram di Cheikh Ibrahima Fall na ko demal wane ni ñu koy demal wane ki ñu ki ne ki ñu war a topp la moo tax seex Moussa Ka ne mos nay xibaar ak njébbaloom mm-hmm. bay wax ne yàlla mii ko moom moo ne ko Bamba moo la moom raasi ko jox ko seen baxe <laughs> wallaay ndeysaan maanaam fële. Mhm. moo tax lu baax ku la ko yombal. wax na lu ko day wax lu ko neex. wallaay ndeysaan. Mhm. ndax suñ Cheikh Fall mu baax ma def na ko woon njaga. Mhm. marchandise bu baax fooy fekk borom def ko. mu ne ko danga koy fekk mu def ko ci biir magasin waggar ko. na ko bazaar nag mu ne ko ci suuf nga koy fekk. dëgg la yoonu yàlla noonu la mel. ku la ko yombal mayu la ci dara. wallaay ndeysaan ku la ko yombal ci dara. waaye nag bu mu awee ci askanam bu tedd googu. ndax maam Saliou Fall. yàlla dafa dogaloon làmmiñ ba leerul lool. moom maam Saliou fan ñoo bokk lépp. ñoo bokk lépp. Mm-hmm. bi loolu amee. Cheikh mm-hmm. Ibra feeñ. Mm-hmm. ñu ne ko kat kii dafa wérul. waaye loolu tax waajuram bu jigéen bi ne maam Seynabou Ndiaye bi Cheikh Ibra ak see jamono. mu ne indi naa mbër ci làmb ji waaye xaw ma ana fu muy bàkkoo. moom maam Seynabou Ndiaye moo wax loolu. daanaka indi naa mbër ci làmb ji waaye xaw ma ana fu muy bàkkoo. xaw ma fu muy bàkkoo ji. waaye fi muy bàkkoo nag mooy mooy biir kër Cheikhul bi lay ndeysaan ndax xam nga ne hmm. sëñ bi def ne ku nu xasul ci yàlla munoo am doom ci yàlla dëgg la dëgg la nee na xas gañ ko xasoon hmm. looluy sababu dëgg la yàlla ko mu am Cheikh Mourou dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la dëgg léegi nag ci biir loolu nag parce que bi yoonu murid di door a tàmbali hmm. daa nañu wax ne nit lu mu yaradal yara dal man a jurum murit <laughs> loolu moom amoon na fi <laughs> ndax ñoom jàppoon nañ ne boobu ak boobu dañoo ñàkk xam lay ndeysaan lay ndeysaan dañoo ñàkk ndax sëñ Tuubaa mhm. leerub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ñi ko doon waggar taxaw di xool jëmmi leer lay ndeysaan bi ko suñ borom nammee ba roof ko ci suñ maam aadama la na ko taxawal mhm. Mhm. bi lépp wóyee la na ko demal wane yaay kan xam nga xam nga oustaz sëñ bu baax bi daf na woon oustaz niñ ko jàppee ak nii du moom Mm-hmm. daan na mu oustaz xam nga nan la doon xarnu bu ne bu mm-hmm. demee ba xarnu bi ndak képp oustaz mm-hmm. mooy ñëw bijjantiwaat léppi rasulillahi alayhi salaatu wasalaam wane waat lépp ba ñëpp xam ne ni kii mooy Moustapha alayhi salaatu wasalaam mu delluwaat loolu moom jàngale googu moom la Sëñ Tuubaa indiwaat moo tax bi yonent bi woyee rek suñ borom na ko demal wane ko dëgg la ndax leer gi yaa ko doon wattu waaye ci biir wattu googu nag daf ci am koo xam ne moo ump jaam ñëpp Mm-hmm. muy Cheikh Ibrahima Fall Lamp. baarakallah baarakallah kon way juróom bu góor sëñ Ahmadou Roqiya Fall la tudd. waaw kay way juróom bu jigéen maam Seynabou Ndiaye jaaraama maam Seynabou Ndiaye. waaw kay la Seexu Bamba yoroon di jaay. Mm-hmm. yaa ko mosal waa Njara Njaay sow nga ñu ron na yaa texe <laughs> yaakaar daal noonu la ko sëñ Moussa waxee woon baarakallah euh, kañ la gane àdduna mille neuf cent mille huit cent cinquante cinq mille huit cent cinquante cinq mille huit cent cinquante cinq ca Njara Wàq ah, baarakallah baarakallah yàlla yàlla fayal ñu ko bu dee ci wàllu xam-xam moom fan la ci jaar ci wàllu bàyyam lan ñoo ko jàngal moo ko jàngal mm-hmm. baayam moo ko jàngal maam Ahmadou fa Fall moo ko jàngal. moo ko jàngal alxuraan. waaw moo ko jàngal. Mm. Mm. waaye bi mu ñëwee ci sëñ Tuubaa. Mm. daf na ko. maanaam la ma xamoon lépp fab naa ko rafaatale la ko. ndeysaan xamatuma dara. baarakallah baarakallah. xamatuma dara ndax ku xool jësbul murid ni mu ko bindee da nga xam ne xam. dëgg la dëgg la ndeysaan wallaay waaw jësbul murid waaw. gis naa ko waaw këy waaye naa nag ba mu accès ci ku baax ki xam nga lu nit ñi war a njëkk xam. Sëñ Tuubaa doo ànd ak jaahil mm-hmm. Mm-hmm. te Cheikh mi ñi nee na mm-hmm. nee na doom mm-hmm. alxuraan daf ne marajal baxrayni yaltaqiyaan baynahumaa barzaxun laa yabgiyaan nee na ñaari ndox bii saf xorom bii lewet ñaari ndox yooyu duñ laalante nee na barzaq googu dox seen diggante nee na man Ibrahima maay barzaqu lislaam wallaay ndeysaan nee na ku ma fi jéggi doo am lislaam wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan da ngay xool minaar bi gën a mag ci sowu jant kan moo ko ko tuddee Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacke. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. kon moom mooy ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la Sëñ Fall du jaahil Cheikh Mouhamadul Fadel Mbacke dëgg la dëgg la du jaahil dëgg la du ndax Sëñ Tuubaa dafa fab. Mhm. xubban wala ilaha illallah. Mhm. bëgg bëggoon yàlla ba yàlla jaral ko lépp. yàlla fayaat ko ko jaam. wallaay ndeysaan jaam ba mooy Cheikh Ibra mooy Cheikh Ibra baarakallah moo tax mu ne bu ñu jëloon bëgg jaam yépp teg ko ci balance bëggu Cheikh Ibra wat leen wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan mu jëlaat fadlan wala ilaha illallah ngëneel yi ko yàlla rafaatali lépp mu jox ko Cheikh Mahamadul Fadel Mbacke wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan looloo waral wallaay ndeysaan minaare bu mag bii hmm. loolu lañu waroon lijjanti lan moo tax hmm. mu dem ba tuddee ko ko dëgg la te julli minaar mooy sooroor sooroor bu mag bi hmm. ndax nee na doom la ma jàppoon ba juri yilimaan mooy liggéeyal sëñ bàmb ndaxte liggéeyal sëñ bàmb moo faw ko lépp ndax nee na boo tàmbalee di liggéeyal sëñ Tuubaa 99 turu yàlla yépp agsi na ci sa kaw dégg la dëgg la dëgg la. te nee na kat doom. Hmm. yéen a ngi jàng alxuraan waaye man Cheikh Ibrahima maa ngi jëfee alxuraan. maa ngi jëfee alxuraan. waaw léegi ñu déggee suñu borom ne wallaahu laa yastaxyi min alxaq. Hmm. yàlla amul kerse ci dëgg nee na. boobu laa ubbee sama lépp. wallaay ndeysaan wallaay awale lépp ci yoon. wallaay ndeysaan wallaay moo tax mun a doom fow ma hmm. fowluwuma. ndax ba mu gisee ñiy sabaru. daf ne diw mun a ko faal mun a ko ana ñooñu lu ñuy def mun a ko faal dañuy sabaru mu ne xanaa dañoo jéggi siraat ba noppi wallay ndeysaan daal ko ku jéggi siraat ba noppi rek a yeyoo sabar baarakallah baarakallah baarakallah kon kooku mhm. lañ war a xam mooy kan mhm, mhm. ndax ni mu def ba raas sëriñ bi ba xam ko ndax sëriñ bi dafa ne dafa am kilifa gu baax gu mu doon waxtaanal fi jamono toll nag mën nañ tudd ay tur mais jamono moo naqari jamono naqari dëgg la dëgg waaw bari na lu bari loo xam ne jarut dégg la dégg la wax nit ñi leen di jariñ jamono laajatul loolu sax loolu moo gën dëgg la moo gën waaye kilifa gu bu mu toogee ci kanamu ku baax ki su eh, sëñ bi def naa Ibrahima mii de. jàmbaar la góor la. mu na ko suñu borom wax na wa taxasallahu Ibrahima xalil. Hmm. loolu lay ndeysaan waaw suñu borom nee na jàppee naa Ibrahima muy sama xarit. waaw ba mu waxee aaya ba mu waxaatee loolu. sëñ bi waxaat même kaddu gi mu delluwaat ko ci kaddu googu sëñ bi ne ko bi may wax suñ sama Ibrahima mii laay wax. Hmm. di Cheikh Ibrahima di Cheikh Ibrahima Fall. Hmm. Babou Mouridine. daan na ko dama yoroon sama yëf. yaakaaroon ne ni ñëpp umpale nañ ko ndekete moom raas na ko ba xam ko. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ma yaakaaroon ne ku ko doo am ngor gu toll ni xamal ko kenn ba di ko ko may bu yëree yëree. wax ne ngor googu. Mm-hmm. kon mbooleem ku jariñu ci Sëñ Tuubaa war ngaa sant Cheikh Ibra. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. ndax nee na kat mbàkke mbàkke bay bootu. Mm-hmm. ak ku baax ki xàmmeewu leen. noonu la leen jàppee de. daal di wax ne maa wane naka la bu ñëpp xam ne naka. Mm-hmm. nee na lu ci bokk lu nekk rek danga war a wane nag. wallaay ndeysaan wallaay nee na kon Baye Fall warul def lu xeebu. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan ndax gàtt yi ñu terelee seen waajur yu baax yi di Cheikh mm-hmm. Mouhamadou Moussa Mbacke mm-hmm. ak Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacke ah. gàtt yooyu der yi bu noppee Cheikh Ibrahima da ko daan wulli ba lépp jekk mu waggar ko denc ko nee na der yooyu moo ëpp marta bay walliw ndax fa lañ sëñ Tuubaa jëlee laa ilaha illa allah waaye xam nga ne ku toll ni Cheikh Mouhamadou Moussa Mbacké moos wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan que sëriñ bi ne woon mboolem ko rasulullahi amuloon bor te fayu hmm. boo gisee Moussa moom mu fay la ko wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan kon der yooyu la ci Cheikh Ibra wax wallaay ndeysaan kon moom ba muy xam Sëriñ Tuubaa yàgg na. yàgg na yàgg na lool yàgg na lool am na solo. am na solo baarakallah baarakallah sëñ Moustapha xam naa ne maa ngi fàttali ne ñi ngi topp seen émission keppaaru mag ñi tey ñu waxtaanee Cheikh Ibrahima Fall. daa mel ne feeñ na it ci biir wax ji li ma doon bëgg a laaj mooy lan la réalisé ci wàllu xam-xam. Mm-hmm. waaye li nga ma indil ci ay xikama. sagesse. Mm-hmm. Mm-hmm. alquran dafa wax ne yuti xikmata ma yasha yàlla daf ne xikma maa koy jox ku ma neex ah. waaye wa ma yuutal xikmata faqad uutiya waaye nag képp ku ma ko jox rek. Mhm. jàppal ne defal naa la mbaqus. dëgg la. faxad uutiya xayran kasira mhm. mooy beral naa la loxo. beral na ko loxo te dafay mel ni Cheikh Ibra nee na Cheikh Ibra nee na ñaari foo ko dégg rek. Euh, wax jum ci mën a doon mhm. boo ko tegee rek. boo ko saraa mën naa génne ay téere kon li ma doon bëgg a laaj mooy lan la réaliser ci wàllu xam-xam feeñ na ci sa biir waxtaan. ndax euh, damay wax ni bind. alqattu yabqa zamanan bada katibihi waaye wa saaxibu lqatti bada al ar madfun maanaam bind dafay des li fi ak ngi fi mbind ma moom mi ngi fi waaye borom bind mi day dem ba nga xam ne borom bind mi sax suul nañ ko ay santa ans mbind ma continuer di fa des loolu la arab yi wax ça veut ni boo indee jasbul murid jasbul murid boo ko tegee boo ko boo xoolee looxa bi mu noonu muy arab moo gën a jafe ci langue yëpp mm-hmm. gis nga ak kër mën nga faa dégg mm-hmm. dégg ñëpp di wax anglais mm-hmm. su yàggee nga dégg anglais ci wax gi ñu koy wax mën nga faa dëkk dégg ñuy wax soose dégg gi nga ko yàgg dégg tax nga tax nga dégg làng ba mën nga faa dëkk dégg ñuy wax tubaab français yàgg gi nga yàgg dégg tax nga mujj man ci français waaye arab dëkkal ci kër téeméeri nit ñëpp di wax arab du tax mukk nga dégg grammaire arab parce que grammaire arabe moom ah, wax dëgg yàlla am njàng koy may ah, waaw hmm. moo tax kon jas bu murid boobu nga xam ne moom la taalif hmm. ba bare def ko ci luxa arabiya luxa bi gën a jafe ci luxa yi hmm. luxa bi ci gën a jafe mooy arab dëgg la arab moom déggantu ko taxul nga dégg ko dëgg la di dégg nit ñi di ko wax taxul nga dégg man nga cee far ay baat rek des fois nga dégg it ku nekk ci ay kër yi ñuy wax ay arab muy muy këf ay benn benn baat waaye su waxee rek nga xam ne kii déggul li muy wax parce que ca grammaire ba ca xawaayit ba lay dem moom dëgg la yeneen langue yëpp mën nga ko ci ba mu des arab dëgg la kon bu taalifee ci luxa arabiya rek ça veut dire que ni borom xam-xam la ah, ñaareel ba it mooy xikma bi ko suñu borom joxoon mhm. nga xam ne mboolem ay jëriñam aadoom la daan wax nga xam ne maanaam moom ku dul sëñ bàmba rek mhm. doom la lay jàppee ku dul seexul xadiim rek moom doom la lay jàppee ndax képp ku muy waxaat rek adoom la ciy teg mhm. loolu it feeñ na ci biir euh, biir waxtaan wi xam naa kon euh, digganteem ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul mhm. digganteem ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul moom nan la dikkee ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak lan la doon xeeñtu ba yam ci Seexul Xadiim ndax am na barab yum jaar door ak ci Serigne Touba waaw dëgg la mhm. ndax nee na bi ñuy jógee ci sëñ bi mhm. sëñ bi daf na ko mu jub jamono lii man la ko suñu borom di jagleel ñu góor ñi walliw ñu jigéen ñi walliw léegi day sànn xam nga soxna su gaawan kenn du te kooku kay. soxna Fatou Diakhaté kii lu nee na moo tax buntu gaa yu baax yi mu fukkoon ñëpp eh. bu ma fa accès damay fekk góor ñi doon ay wàllu. waaye jigéen ñi motuñu. wallay naa xam ne kii du sama waa ji. wallay ndeysaan mu ne ko beneen mandarga bi may xàmmee say nit ëllëg. Mm-hmm. leer gi nga leen di defal. day mel ni jigéen ju wan nag lor. bu nuy dox. Mhm. saa bu gën a jëm kanam rek nga xam ne am na lu mu àndal. waaw neen taali bi suñ tuwaa dëgg noonu nga war a mel. la ku la séen ngay dox di ñëw. nga xam ne am nga ko baax la di waaw ndax loolu sëñ bi daf ko mooñ ci biir xasida. dëgg la di wallaay di seet nee na looloo tax bi mu gisee ñoom sëñ Adama Gueye mu baax ma. Mhm. gis li maam Adama Gueye boobu ca sëñ Mor Mutu fa Bombe Touré la jaar. waaw. ba mu fa mhm. jaaree gis ñoom sëñ Adama Gueye am lu ñuy wutali sëñ bi. la ne leen néglu leen ma tuuti boo leen di dëpp ma tàggu ku baax kii ma nekkal te ñu ànd ci seen. lay ndeysaan lay ndeysaan waaye nee na keroog bi mu ñëwee di di tàggu sëñ Mor mutu fa Bombe Touré moom. Hmm. sëñ Mor def na ko ah ko Fall mu ne ko ah hmm. fii fi mës a jóg da dem di fajali. aajo waaye kenn mosu fee jóg di sàkku leneen. di sàkku ji aajo <laughs> wallaay ndeysaan. waaye sëñ ba nee na ma ca fullam nee na kuñ tuddi ku yaakaar Cheikh Ibra te amoo fulla rek bokkoo ci Baye Fall. wallaay ndeysaan. nee na mu ne ko da xëyoon gis ma xëy na la dem damay dem ñaanal ma damay dem. ah <laughs> loolu kii waa dëgg la ah. ah la fulla yem. lay ndeysaan nee na booba mag ñi bu njëkk buñ la meraan dañ lay ñaan ñaanum njéppite waaw mu ne ko waaw ah, ah waaw baax na foo jëm yàlla na fa yiw yàlla jëm Cheikh Ibra nee na xamul ne moom ñaan googu muy ñaan ismullaahil azam la te man la ko yàlla jox fa ma jëm fa la yiw yëpp daje muy si sëñ Bamba laa ilaaha illallaah nee na doom keroog bi ma àndeek sëñ Adama Gueye moom di dox hmm. nee na sama galeñ yi fa la ma ko malayka yi bàkkalee kii eh, defu ko ci nii de euh, nee na jéego gu ma dox hmm. malayka ya bàkk ca kaw ndax ndax yàlla kii bu gisee kii ñëpp gindeeku wallaay ndeysaan ndax nee na liñ njëkk a bàkk hmm. ku fi njëkk gën ku fi njëkk gën waaw te alxuraan na wa saabixoona saabixoona ulaayka muqarrabuun hmm. nee na ku fi njëkk gën ku bu ma doxaatee tuuti ñu ñu dóoraat galañ bi na bëgg gëm ak jëf nee na xam nga fu ñu daanelee galañ bi mooy fu waay yem yaa fa yemale sa bopp fu waay yam yaa fa yamale sa bopp nee na loolooy sababu galañ gii nekk ci biir këram hmm. te nee na jigéen ak ndaw leen mën a womat mooy hmm. mooy mooy mooy tëggukaay ndax te ah. jën leenug lislaam ah. Ah. boo xoolee naar yi daan nañ ko utiliser lu bari waaw tabala lu bari daan nañ ko utiliser hmm. nee na ndaw soo ko bëggee womat bàkkal xiin ba mu ñëw. Hmm. nga wommat ko marale ko ak boromam ba dootul tàggoog leneen lu dul yàlla. lay ndeysaan ndeysaan. sabab boobu nag la def moo tax mu ne lu ma daawul def. luñ ko ci hmm. jénnee jénnee jénnee ca la. Hmm. lu ma daawul def. nee na maanaam lu mu daawul def. luñ ko ci jénnee jénnee du ca. du ca mais nee na lu mu daan def. luñ ko ci jénnee jénnee ca la. ca la bokk ca la bokk dëgg la dëgg léegi nag melokaan bi ak nan la ko nit di utiliser. ndax Serigne Touba li muy njëkk def ci nit. Mm-hmm. xelam lay njëkk defar. dëgg la. defar xolam walaay ndeysaan door a defar jëmmam waaye nee na doom bu ñu demee ba mu jub jamono ñëpp seen jëmm rek lañ defar walaay ndeysaan defaratuñ xel yi defaratuñ xol yi walaay ndeysaan defaratuñ biir gi dëgg la dëgg la ndax bi mu rombee ñiy tabax mm-hmm. néegug suñu borom daf na waa bisimilah jàmm mm-hmm. diw ñooñu ana lu ñuy def mu ne ko faal dañuy tabax néegu suñu borom mu ne ko ah nee leen tabax ñu tabax tuddee ko néegu yàlla de waaye man Ibrahima di néegu suñ borom ñaar laa ci xam. Mm-hmm. xolub jullit bu laab. Mm-hmm. néegu yàlla la fa la yàlla def. waaw waaw lay ndeysaan nee na ak biirub jullit. ak biirub jullit. nee na foofu pax pax la boo xam ne yàllaa ko yattal boppam. bëgg ku ko ca defal. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay wala. Mm-hmm. moo tax mu ne nag. yoonu murit ak bascule moo yem. nee na tiim ko di wax taxul nga am ci daal. loolu mu wax wax yonent bi alayhi salaatu wa salaam la. Ah. alayhi wa salaam moo ne. fekk jullit. bu xiif. nga tàbbal ci biiram benn miskit. moo gën tabax junniy juma. Ah. <laughs> li nga wax nii wax yéen tuwaat sallallahu alayhi wasallam la. Ah, ah, waxi Cheikh Ibrahima ji. maanaam xam nga tey jii maanaam sëñ Tuubaa. ñi mu àndal kenn doonu ci jaahil. Mm-hmm. waaye ku mel ni Cheikh Ibrahima lañ mës a gis. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax nee na bi mu ñëwee. jublu jëm ci ku baax ki. ngir jébbalu nee na Seydina la ko wommat. alayhi salaam. wan ko ni ñuy jébbaloo. moo tax mu ne murit yoonu murit toogin gi ñuy toogee sax toogin gu yàlla gërëm la waaw nee toogin gu yàlla gërëm la waaye nee na foofu doom bi mu su bi mu sukkee ci kanamu ku baax ki di jébbalu nee fukki bunt ak ñaar ubbeeku na jëm ci yoonu yàlla yoo xam ne musuta wàcc ci dénn bi baarakallah nee doom ci laa ci rocc ñàkk julli ñàkk woor coow li na xas ma tëj lépp waaye nee na doom bi may jug ci kanamu sëñ Bàmba sama faxasitu oom man Cheikh Ibrahima Fall. nee na mooy wërsëgu murit yi ba bis pénc taxaw taxaw sëñ Tuubaa fayagu ko dara. maanaam bi mu sukkee ci sëñ bi ñuy jébbalu jóg bi mu jugee. waaw nee na faxas li li taqoon ci oomam bi mu ko faxasee mooy wërsëgu murit yi waaw. nee na sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa dencal ma lépp ci yow ma yaqumu ruux wal malaayikatu safa laa yatakallamuuna illaa man azina lahu rahmaan nee na bu ñu àggee foofu koo leen joxañ mën a du yow bu boobaa yéen ñi aju ci man hmm. joxañ leen ma mën a man dëgg la dëgg la ndeysaan baarakallah waaw ndax loolu lañ war a xam xam mm. ne mm. bi muy jógee ci suñ borom nit eh. yàlla yëpp dañoo jël seen secret c'est kenn ku ne na ko yóbbul ma ko ci liggéeyu ahmadu ji mm-hmm. Cheikh Abdou Khadir Jeylaani mm. moo jël karawam bu sell gi jox ko ko mm-hmm. zul kifli mu baax ma moo jël njaxas bii na ko yóbbaaleel ma ko ci liggéeyu ahmadu ay cëram luñ synchroniser la mm-hmm. moo tax mu ne doom alxuraan aaya bu ne sëñ Bamba wax na lu ko tax a jóg Mm-hmm. waaye man Ibrahima araf bu ne jëf naa lu takk mu wàcc. baarakallah ndax nee na doom ruko am sujadan xam nga nan nga koy xamee. Mm-hmm. nee du ay ruko yu bari de mooy ku la gis xam ne julli tiggee ngi ne. ruko am sujjaday. waaw nee na mooy nii Seex Muntaxa mel. wallaay ndeysaan. kenn du ko gis rek dañuy gis rek noonu lay désert lay nee na loolu la waaye nee na nekkul taxaw di julli ndax nee na doom yéen ñii di julli maa leen ko gën a xam dëgg la ndax nee na fa ko suñ tubaa fekkoon malayka ya ko fa toppoon nee na bu malayka yooyu yëpp wàccoon kenn ku ci ne jël ci pepp suuf si malayka yooyu dana am ñu am nee na la ko sëñ Tuubaa eh, fekk na ko kaay gunge ma ci liggéeyu rasulullaahi barakallah barakallah daan ne sëñ mortaala bi ma agsee ba daaru duniyaa lañ xëccoog man suuf lañ xëccoog man mbooloo ma bàyyi leen ak mbooloo waaye ne doom julli mortaala fàll ko wax waaw mm-hmm. na ko doom lan moo tax mu ñëw juróomi yoon ngeen war a laajte mm-hmm. daan ne doom boo ne allahu akbar mm-hmm. mooy yàlla maa ngi nii duma dara nee na ko yàlla rek a ko yeyoo nee na nga rukkoo mooy yër nga sa bàmmeel nee na nga su ah nee na nga rukkoo mooy yër nga sa bàmmeel nee na nga toog nga sujjóot toog di taaye mooy janoo nga ak sa bàmmeel nee na moo tax alxuraan na fa isa xudiyati salaatu fantasiru fil ard boo leen julletee ba noppi def leen yitte de xam nga ñii jàng gi lañ am waaye mm. moom jëfe alxuraan la am wabtaxu min fadlillah ah wadkurullaha kathiran ah, kon moo ngi noonu maanaam umpule moo ci am mm-hmm. ndax nee na doom alxuraan mm-hmm. moo fasu naaru góor bu suur peppayam wallaay ndeysaan xamul borom ak kañ ko amal moos nee na ku ci toog toogin gu rafet rek mu wommat la dëgg la kon nee na kii waare mm-hmm. wala kii soññi na wax ndigal ak suñ borom yi dëgg la ak tereeg suñ borom yi te bàyyeeg jaam ñeeg seen borom ndax yàlla fi muy mujjeeg jaamam kenn xamu ko dëgg la dëgg la dëgg la ndeysaan lii la wax de baarakallah <laughs> te te te te moom ngay mooy xekkam xekkama bi ma doon wax léegi moom lañ moo dellu moo dellu ndax fii mu ne wax yu am njariñ yooyu noonu mm. Mm, ça veut dire man déggee naa ci ne mm. kon yu bare bare bare bare bare yi ngay dégg xuraafaat yi ngay dégg nit ñi di ko wax mm. naan bi mu ànd ak si yaadama géey daa yéeg ci garab daanu ci suuf mm. ne addi kama jëm te mm. egg gumaak yooyu yëpp ça veut dire que ne ay xuraafaat la c'est parce que it euh, nit ki bu fekkente ne dañ la dañ la ko aard maanaam bu ñu la exposé nit ki rek mooy kan ci wàllu xam-xamam dimension bi mu tolloon ci wàllu yàlla. Mm-hmm. da nga da nga bari yoo xamante ni. Mm-hmm. loo xaar ku ne la du dëgg. dëgg la waaye yow ci sa bopp yaa koy njëkk a dëgg la yaay xam ne kii moom fa mu tolloon romb na foofu. sa mm-hmm. parce que ki toll fii ci yàlla. waaye toll fii ci xam yàlla. am na ci yu bari bari bari bari yoo xamante ni daanaka jërul di sori. ñaari bayit mooy que ne euh, man toujours damay wax ne. alquran dafa wax ni. waxuma nag ne bu kenn julli. waxuma it ne bu kenn woor. waxuma it ne ku ko def na sama yoon nekku loolu waxuma ci. Ah. waaye damay bëgg a wax ne li alquran wax lay nettali. Mm. alquran daf ne inna solata mm. tanha anil fahshai wal munkar. Mm. waaw dëgg la. julli da leen tee def lu ñaaw. da leen tee def lu yàlla tere. te léegi. am na ajjuma joo xamante ni ci jumaa bi may jiite maa ngi maa ngi wax lu mel noonu. ne man li ma jaaxal mooy lii la ñu alxuraan wax. Mm. te kenn ci ñun ku nangoo jël sa téléphone teg ko ci bunt bi. Mm. ngir boo génnee fekkaat ko fa amut. waaw. inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar. Mm. al fahshaa kay sàcc ci la bokk. waaw dëgg la. dëgg la waaw maraakiis yu baax sax boo koy indee ci jumaa ji doo ko fa teg doo ko simmi ci buntu bi doo ko fa teg te moo ne tanha anil fahsha lañu alquran waaw waaye nag la ca alquran teg moom moo ta bàyyi xel hmm. mooy wala dikrullahi akbar nee na julli dana hmm. tee def dana teree def lu bon hmm. dana far ay ñaawteef dana tee def lu yàlla tere waaye nag wala dikrullahi waaye tudd yàlla akbar moo gën a rëy yéem a tudd dëgg la mbàkke wala dikrullahi akbar kon day am loo xam ne mbirum suñu borom la dëgg la mbirum suñu borom la daa mel ne dégg naa ñu ne saamaam Cheikh Ibra daana wax ne mhm. maandoo gën julli waaw waaw dëgg maandoo gën julli loolu ci xekk ma yi mu daan wax la muy yu am solo am solo am solo loolu mooy mhm. digganteem ak Sëriñ Tuubaa bi muy maanaam bi muy jébbalu ci Sëriñ Tuubaa naka la jébbalu woon ci moom mhm. wax nga lu am solo am solo mu ne bi mu jo sukkee ci kanamu sëñ Tuubaa jox ko boppam bi mu jógee mm. faxasitu oomam mooy wërsëg wi murid yi di jëfandikoo moo ne wërsëg faxasitu oomam yooyu ci la murid yi def ak raay diggante Njaaréem ba Touba te moom lañ defaraatee université moom lañ defaree université bi te la mu waxoon sa maam neewoon naa ko dina neewoon na ko dina ko liggéeyal ba bàmmeelam di ko liggéeyal ba mm. nii mu toll bàmmeelam a ngi joxe at wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaw dégg naa barug Cheikh Ibrahima lépp ba nii moo ngi joxe at dañ te ba muy wax loolu kat ña ko fekkoon dañ na ah bàmmeel buy joxe at la ilaha illa moo tax mu ne doom saxaaba yi ñooy seen bàyyi ci diine wallaay ndeysaan mm-hmm. lu saxaaba yi déggoon rek di ngeen ko dégg baarakallah mm-hmm. wa isa xiila lahum aminu dé mm-hmm. wa isa xiila lahum aminu kama amana naasu suma juun kama amana naasu aminu kama amana naasu qaalu qaalu anuminu kama amana sufahaa ala innahum humu waaw ndax saxaaba yi bu njëkk yi ñu toppoo njool màkk mm. gaa yi leen xamoon dañ leen a wéroo leen li mm. fab ngeen seen alal wallaay wallaay wallaay ko topp kii nga xam ne jëmul fenn mm, waaye mujj nañu saxaaba yi ne leen yéen ñii boo leen xamoon ndimbal seen ndimbalu tey ak ëllëg moo ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ibrahima nag nee na doom nag kon ku képp ku aju ci man na nga waaj te xam ne tuuma ji dama laaj suñu borom ëllëg lan moo gën a gaaw a mën a yóbbu nit ci yàlla mën a ko tuuma ju dul dëgg ak joxe ñam. ne lay a ko jox moom ma na démb dégg naa ko. ndax nee na dafa xam ne nee na dafa xam ne ne góor du wasin. Mm-hmm. nee doom. Mm-hmm. yoon bii ma leen awale dafa gën a gaaw. ndax charia. Mm-hmm. dafa compliqué. nee na faram fàccee nañ ko nu ne ba ba tëj na bopp jaam ñëpp. nee na man li gën a gaaw laay def. damay fexe ba mboolem bon dootoo ko xemmem mboolem lu bon dootoo ko xemmem loolu mooy sharia nee na soo ko defatul rek wàcc nga mooy innal hudaa hudallah wallaay njub googu la la Cheikh ndax nee na sëñ Bàmba def na ko def na mag ñi mm-hmm. man de xam nga xam nga nan laa utaleeg ñu njëkk ñi seen defaram mm-hmm. mag mag ñi ne ko mbàkke xanaa nga dimbali ñu ci mm-hmm. mu ne bu mu njëkk mag ñi ku mësaan jàdd nan lañ lay def ñu ne ko dañ lay awalewaat ca suuf mu ne waaw noonu baax na de waaye noonu yéex na lool de man Ahmadou de yàlla may na ma fu nit toll ci mbon mhm. to buntu baaxan ci wetam mhm. Mhm. waxtu bi muy agsi ci man ci mbon buntu baax googu laa koy agsi nee na mooy waral nga gis def katu ñaaw téef bu mag sukk jébbalu tey rek ñaari weer ñetti weer nga ne xanaa kii du diw nga ne xanaa du nee na buntu boobu la koy ubbi walaay ndeysaan Cheikh Ibra nag moom am ci melokaan boo xamante ne dunduk àdduna gépp yoon bi yëpp ni ñu waroon doxee lépp awale na ko ci yoon. dëgg la ndax nee na doom. Mhm. bu ñu demee ba mujjug jamono. gone yii ma gis danañ sonn. Mhm. ñu ne ko faal lu leen di sonal. mu ne mhm. dañoo nangut liggéey. te bëri bëgg-bëgg. te bëri bëgg-bëgg <laughs> loolu de moom mooy jamono ji nee na ndaw lu ko def dana sonn ci maasam. ñu ne ko kon faal bu nan la nan la ndaw yi war a def. mu ne néew yi bëgg-bëgg te nangoo liggéey te wattandiku yàq. moos wallaay ndeysaan te wattandiku yàq. waaw dëgg la daa di wax ne doom. Mm-hmm. ak ndaw su bëggee mucc na yor lewetug muus mm-hmm. Mm-hmm. nee na muus li ko bàyyi ci biir kër gi lewet rekk a ko may wallaay ndeysaan wallaay ba tax lu mu fekk sañ na ko jël te kenn du ko wax dara moos ci waaye nee na doom du am wextan jëmale ko ci baayam ah, ah. du am waxtaanam jëmale ko ci société bi di kaas. di def lu nekk nee na kooku li mu mën a am du bari. dëgg la dëgg te Cheikh Ibrahima nee na njaboot jii ma gis li leen di tax a sonn dañuy dem fekk fa seen bàyyee nekkoon. ñu bëgg fa def dara. dëgg la dëgg la bu wér. nee na loolu du sotti. Mm. nee na doom. Mm. ku bëgg am lu yaatu da ngay dem fekk fu dara nekkul nga def fa dara. dëgg la mooy maag sëñ Bàmba ni ñu def. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. looloo war a suñ tuwaa am suufu daaru salaam. Mm-hmm, mm-hmm. am suuf yooyu yëpp. dëgg la. Mm-hmm, te melokaan googu yëpp Cheikh Ibrahima ko yor. kon njëriñ njëriñ yi mu am ci biir ndax hmm. newoon na doom ak taalibe hmm. war na yor meloog mbaam mbaam sëf ñu ne ko faal mbaam sëf mun a waaw mu ne hmm. mbaam li muy daj coono gi muy daj te néew na nga gis mbaam bu ñuy xotteeg ripaas dëgg la déedéet déedéet bariwul li muy am de kon nee na nag boroom kër bu ne <laughs> eh. saa boo yoree kër bul dëkk ci jàmbat dëgg la ku ci jàmbat. maa fi indi lii maa fi nangam lii maa fi nangam lii maa fi ah, nangam ah, na loolu du melokaan. <laughs> awale leen ci yoon wan leen ni ñuy def ba jariñu. dëgg la mooy lépp solo. am na kon moom dundam lépp. Mm-hmm. lépp lépp lépp daf ko jàngale te nee na suñu borom li mu gën a bëgg. Mm-hmm. loo xam xam lu baax te doo ko ko jëfee amulu la njëriñ sëñ sàmbay mu baax mi nee na mm-hmm. nit ku baax nga wax ko lenn ba mu xam ko xam ko xamin du wér moo gën mu fanaanee téeméeri rakkan di julli lay wallaay ndeysaan am na solo am na solo am na solo Cheikh Moustapha Diop barakallah maa ngi fàttali ne yéen a ngi topp seen émission keppaaru mag ñi tey daal la Serigne Moustapha Diop moom Baye Ndiaga Diop almarhum yal na yàlla yërëm ko te jéggal ko barakallah di waxtaanee Cheikh Ibrahima Fall am na solo damaa dégg ci sa biir waxtaan ñaar yu am solo am solo am solo mooy li Sëñ Tuubaa di wax ta ni tawaytu tariqal qawmi waqatamtidaahihi mooy fa góor yàlla ya daan jaar dëgg la di yor turu yàlla di ko wér di ñeen fukki at juróom fukki at mu door leenoo wuyu suñu borom dafa mel ni ci tagg gi ma tagg yonent bi aleyhi salaatu wa daf ma koo taxañal dëgg la daf na koo taxañal ci ñaari minute mm-hmm. dëgg la daa mel ne kon mm-hmm. ñaareel bayit mooy ci wàllu tarbiya bi dafa mel ne mm-hmm. dafa waxoon wa bi kitaabati ya rabbi rabbi kulla mutaalian li wajhi rabbi mooy suñu borom daf koo defal ci mbindam ci lay tarbiya da ngay gis koo xamante ni ci melokaan wu mën a am su dikkee bu jébbaloo tey tàmbalee jàng xasaayid da ngay gis da koy soppi melokaan woo xam ne day amee bi ngoo xamante ni moom alhamdulilah da ngay xam ne kii daal lii mu def nii mooy li ci moom lu jiitu mu ciy nekk dafa mel ni Cheikh Ibrahima Fall yi euh, ni mu meloon ci sëñ Tuubaa ah. teewutoon it nag li ko suñu borom sant lépp ma nga ca woon ah, maanaam danaan jokk bokk mm-hmm. di sàmm kóllëre mm-hmm. waaye boole jaamu yàlla ak liggéey yi ci wàllu kóllëre yooyu mu doon sàmm mm-hmm. ci diggantee mag njabootu sëñ Tuubaa gi ak bokki sëñ Tuubaa yi man am naa maam joo xam ne Euh, sëñ Mor Bousso Khourédia moom mhm. sama maam ñoo bokk ndey ak baay dëgg la sama maam bi ñu ma tuddee mhm. daa wëlëree wootoon woon ak Cheikh Ibra ba mhm. bi mu jugee ñaanuk Cheikh Ibra bi mu jugee ñaanuk Cheikh Ibra ca bis boobu la faatu dëgg la bi Cheikh Ibra noppaloo mu dem jaale ji Cheikh Ibra daa ñibbi si këram moom it faatu ñoom ñaar ñoo bokk benn at buñ faatu xam nga kon foofu la kóllëre mën a yem sëñ Maodo So mm. doomi borom saam la ma moom borom yooyu nga xam ne moom la mm. amee woon ak mag ñi bëgg naa ñu dikk ci diggante jabootu sëñ Tuubaa gi waaw waaw ni mu leen waggaree woon ak mm. yeneen mbokki sëñ Tuubaa yi ak relation yi nga xam ne amoon na ko waaw Mbàkke laaj nga lu mat a laaj mm-hmm. ndax mm-hmm. daf ne mm-hmm. sama siège bi képp ku fi toog te matul Hmm. ña ma defaroon ñu mot. wallaay ndeysaan nañ ko mottali kon kóllëree ngi noonu. dëgg sama siis bi toogukaayam bi la. Ah, ah. képp ku ci toog te motul. Ah, at ba lay wax. nit at. at ba waaw. léeg nit wuutu baayam. Hmm. te at yi mateewu ko. caar yi waaw ñamu defaroon tam mot nañ ko mottali. nañ ko mottali baarakallah. nee su mënul. Hmm. ma mënal ko. bu xamul ma. xamal ko maay kii fayte du ma jeexle. loolu ci kàttanu suñ borom la ko amee. baarakallah baarakallah. ndax laa ilaha illallah jii ngay gis sëñ bi ko daan sikkaral boppam ci xuru Mbàkke. Hmm. ginnaaw gi la ko joxaat Cheikh Ibra. muy zikkar zikkar si muy sikkar. waaw baarakallah te it Cheikh nee na ëllëg bis penc ci yàlla ñi jub ñi ñi ñu jubal ñi. Hmm. te dëggal lay mujjee wax. am na solo. nee na moo tax sëriñ bi. Hmm. tënkee saana ci sidduquhum sidquhum mooy saa ilaahi waaw nee na nag ci suuf nag la sëñ bi wax moom la bàyyeeg Seex Ibrahima maa tawajjaha nasaara allaahum mm-hmm. liya bi laa ilaaha illa allah mm-hmm. xoolal saana googu sëñ Tuubaa nee na mbooleem ko ci sax mm-hmm. dimbali nga ci rasulullahi ci mbooleem xare yu mu mës a ne nga ko ci lépp wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaye nag kóllëre googu moo tax bi sëriñ bi nelawee ñuy bijjante ay mbiram dañ ne dañ ne nañu woo Cheikh Ibra mhm. Cheikh Ibra bi mu agsee daf ne bisimilah jàmm maa ngi leen di laaj ana ku ma mën a doon. ana ku ma a doon. ñu ne ko Fall yow kenn attanu la ku sa waa ji. mu ne ko mhm. konte na euh, donte nag kenn attanu ma kon léppam nañ ko lafta teg ko ne le def ko ahlu barsaq. wallaay ndeysaan. Mhm. waaw moo tax ba sëriñ gi soxna yi nga xam ne ñoom la yoroon. Cheikh Ibrahima def loolu. dañ la leen woon ñooñu moom waa barsaq lañ kenn dootu leen yorati. déedéet. waaye nag nee na nag doom. kañ amoon borom la. nee na xaadimal Moustapha borooma mhm. ndax li tax mu sañ a wax yaa maalikal mulk yaa man jàll an qawadin ah. waaw mhm. irham jami an wara yaa hadiyan rada mhm. loolu daf ko am ci boroomam wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan waaye nag nee na kii ñu am sëriñ la te sëriñ dafa bëri yitte ci yàlla wallaay ndeysaan muy Cheikh Moun Moussa Mbacke wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay looloo waral nag mu lëkkale ko ànd ak moom seex Moun Moussa ba titre foncier bii bi ñu koy soppiwaat moom la àndal keroog daf na ko boo demee lu la tubaab bi laaj na wax ma fay ko lay ndeysaan keroog ba ñu àndee tubaab bi na ko ah tur na Cheikh Moussa tur kan lañ ci def ko na ko baal mu mu gis la kii bu jékkee-jékkee ak asfanam yépp na fii ñoo ko moom kon nan di def lay ndeysaan na ko ah kii de am na borom ba noppi te keneen dootu ko moom xaadimal Moussa moom na ko lay ndeysaan lay ndeysaan waaye bu mu jéggee loolu daf na ko nañ ko warmaalee waayam mu mm-hmm, mm-hmm. di xaadimal Moussa defaat ko addiya wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan keroog ah, titre foncé bi ci turu Seexul Xadiim la mujj nekk. waaw mhm. te moom moo ko fay valoriser ko. Mhm. Mhm. ndax nee na kat. bu defuloon loolu liñ bëgg duñ ko am. moom kay daa mel ne xam naa ne kajoor kajoor gi. Ah, ñoon na ci moom ci wàllu suuf. bu ndax ca année ca année yu yàgg yee sama baay nee na ma. seen Cheikh Fall waxoon na ko ne ko. Cheikh Moustapha Fall seen baay wowoon na leen. moo ko Cheikh Moudou Aminta mu baax na. nee na bi ñu agsee. Cheikh Moustapha ne leen woowu ma leen. seen maam moo leen soxla ndax day jëm si mag. nee na keroog bi ñu agsee seen maam daf leen laaj fu seen alliwa toll kenn ku ne wax ko fi mu toll waaye nee na ñoo ko fekk muy gas ñaari pax. di tëbb ci bii di def ci bii. daal wax ne xaaral ma denc sama suuf si ndax mujjug jamono Sénégal ñu dàq suuf sàcc suuf fii la ñuy dëkk. fii la ñuy dëkk. <laughs> bu tëbbee ci bii def ci bii. def ci bii tëbb ci bii def ci bële. seetal loolu seetal loolu. Mhm. waaye tamit. suufu maanaam suufu Daaru Salaam jooju yi tamit. Cheikh Ibra bi muy nekk ci àll googu. Mhm. rabaatar na ci àll bi ba ñëw. Mhm. ci kanamu ku baax ki toog ci kanamu. daan na ko mbàkki suuf si wax na ak man. sëñ bi na ko ana suuf si wax. mu ne ko ah mbàkke suufu suufu suufu daaru salaam bi de. Mhm. wax na ne ne suufu xuru mbàkke bi. Mhm. sa leer gii di fa wàcc. Mhm. suuf sa àttanu leen. sëñ bi ne ko ndax suuf su faatu amul. ndax am na mu ne ko waaye mbàkke suuf su màggale am na. ndax sëñ bi leeram gi des daaru salaam dafa. bi des xuru mbàkke dafa bari. dafa xaw a bari waaw. waaye imagineel ki liggéeyal suuf si ba suuf si wax ak moom. kon nan la la sëñ Tuubaa def. ci lu wér kay ci ci biir kóllëre googu yi tamit. musoo dox ba dégg mukk fenn ci biir këru Cheikh Ibra. fuñ ne la Cheikh Ibra am na ku mu jotee. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. keroog bi ko maam Cheikh Anta wooloo. ku baax ki woolu ko. Hmm. ñaari ñaari woote yi daje. Hmm. dafa dërale ci suufu daaru bi ne bisimilah jàmm at letti leen ma baa ngeen firi ma. Hmm, ku sëñ Bamba woo da ngaa war a wuyu waaye Cheikh Anta ku mu woo da ngaa war a wuyu. da ngaa war a wuyu. <laughs> xoolal valeur ba mu leen jox. walaay ndeysaan walaay de loolu de war ma dëgg la. waaye wóor na ko de moom mu dugg ci biir askan. walaay ndeysaan wane fa yoon ba ñëpp jariñu. te mosut a jote kenn. walaay ndeysaan walaay ndeysaan walaay ndeysaan te dégg lu ne. te dégg lu ne. wala déggee ko nu ne it. nu nekk na nee na doom bi sëñ bi dem ci bàmba ji mm-hmm. bi muy sëñ bi dem ci géej gi mm-hmm. dañ ne ma woon faal lii lépp yow la nee na xas bu doon tagg man rek a ko am ci sariya wallaay ndeysaan walaay ndeysaan. nee na moo tax bi bi bato bi ceerewaate ñu ne ko lii lépp yow a faal. nee na xas walaay ndeysaan walaay ndeysaan. Mm-hmm. ndax nee nañ doom jay nañ ko jaye jaye mm-hmm. jay bu tubaab yi yóbbu ko ci biir géej gi. Mm-hmm. ci lu wér kay bi sëñ bii dem ci géej gi daf ko woo bu mu ñëw na ko Cheikh Ibra. lii mu bëggal umma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. man xaadimal Mustafa faw ma dem ci géej gi mooy tax ma jot ko. walaay ndeysaan. waaye mbooleem ku daan ñëw ci sama kanam ak sama ginnaaw na nga ko teral waaye na ko wasa arju insha allah wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan nee na bi ko sëñ bi waxee na ko wasa arju insha allah ileykum la xam ne la xam ne sëñ bi day dikkaat wallaay ndeysaan <laughs> wallaay ndeysaan am na solo barakallah <laughs> loolu am na solo lool euh, li wax ci diggante sëñ tubaa ak euh, Cheikh Ibrahima Fall mm. ak maam Cheikh loolu rek doy na mm. misaal ndax ma mm. moo waral sëñ Tuubaa woo ko Seex maam Seex Anta woo ko hmm. mooy laaj hmm. ñoom ñaar kum ci war a wuyu ci ah. xam na fi sëñ Tuubaa teg maam Seex Anta hmm, bu baax waaye xam na it maam Seex fi mu teg sëñ Tuubaa dëgg la waaye nag moom mi nekk ci seen diggante maanaam euh, war ma moo tax muy waxee noonu waaye wóor na ko ni wóor na ko ne bu wuyu jee sëñ Tuubaa Seex maam Seex Anta du ci du ci du ci mer dëgg la waaye war ma ak xam ne bokki sëñ Tuubaa yi mm-hmm. nii la leen sëñ Tuubaa defoon moo tax kenn leen de mm-hmm. moo tax wax dëgg yàlla war ma jooju waaw daa feeñ ci yu bare bëree bëri bëri bëri gis nga ni mu ko defal maam Cerno maam Cerno keroog bi mu ko wanee ganesi mm-hmm. maam Cerno def na tëral leen zeng yëpp Cheikh Ibra fu mu aw jaar yoon la dëgg la di wax nañ loolu baarakallah fu aw yoon la baarakallah kon moom bi mu leen di xam ñun ñi xeentiwuñ sax ba koy xam. seetal loolu baraka ndax nee na nee na ci sëriñ bi. Mhm. xam-xam du fa maye nit dara. wallaay ndeysaan nee na daa am lool loo xam ne dof dof lu moo koy maye. dëgg la soo ko amee ba pare dellu doon. dëgg la nitum njaay. wallaay ndeysaan nit njaay. Ah? waaw waaw. Mhm. nee na hmm. ci kanamu suñ Bàmba moo tax bi mu ñëwee lu mu xamoon lépp mu ne ko xamatuma dara mu ne xamatuma dara dangoo doon xam nga sëñ bi gërëm na ko gërëm goo xam ne daf ko woon na ko Cheikh Ibrahima bis ni ki tey sañ ngaa bëtt teen hmm. dem di fa naan yàgg ñi hmm. yaakaar ñëpp ba bés pénc du la wàññi dara bi mu ko waxee loolu daf na ko mbàkke bàyyil ma nekk fi yow ndax ak teen day te ku tàbb ci lu dul jeex dootoo jeex wallaay ndeysaan xam nga loolooy loolu mooy war a fax naa laka zikraka dëgg la dëgg la war a fax naa laka dikraka dëgg la walaay ndeysaan waaw walaay ndeysaan walaay xam nga baadu asubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alam nasrah laka sadrak laka sadrak uh-huh. maanaam ubbi gi rasulillahi yàlla ubbi dënnam mm-hmm. loolu daf ko rafaatalee fayaatee ko Sëñ Tuuba. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan am na solo am na solo am na solo. oo oh, daanaa an ka wisraka googu allazi an xada zahraka xam nga ne xidma gi Sëñ Tuuba doon xidmal rasu rasulullahi mm. ngir mbindeef yëpp la. ngir mm. yàlla jéggal leen. wallaay ndeysaan irham nga gis nga taxmis astaghfirullah. astaghfirullah waaw waaw waaye déggal Cheikh bi muy xam seen maam. Mm. nee doom dem ci ki ngeen xam ne allahuma jum wax yàlla nangu na ko. moo gën a wóor ngeen dékk seen loxo di ñaan ñii ndax la daloon suñ maam Ibrahima dal leen. wallaay salaam. nee na ñaan ba galfañu. Mhm. nee na loolu lay bañ. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan <laughs> am na solo am na solo am na solo baarakallah yàlla yàlla fayal ñu ko maam Cheikh Ibrahima Fall. Euh, liggéey bu léegi boobu nga xam ne liggéeyal na ko yàlla. waaye jaarale ko ci Cheikhul Khadim. ni mu waggare woon bokki si Tuubaa Maam Mor Jaara borom Cham. Mm. tuddee na ko ñaari doom sëñ Bakki Xarit Jóob am na ñu ne sax sëñ Mor Talla Fall moom la ko tuddee ngir loolu it ngir dabu bëggu Sëñ Tuubaa rek bëggu Sëñ Tuubaa bi Sëñ Tuubaa yu ngi ci géej mm. sëñ Mame Mbaye Lo. Mm, waaw Mame Mbaye waaw waaw bu bu Thiès. bu Thiès waaw sëñ Babacar waaw waaw dégg naa bi mu dikkee ne ko sama doom euh, soxna si da daay yeewee ko. Mm. daf ne ko ndigal li fi mujj mooy borom saam. dëgg la tuddee ko <laughs> tuddee ko borom saam. fekk boobu sëñ Tuubaa ko jox ndigal mu tuddee borom saam doom. dëgg la léegi ginnaaw bi ci digg diir bu gàtt. Mm. sëñ Mame Mbaye Lo am tudd. dëgg la laaj ko ndigal mu ne ko ndigal li fi mujj mooy borom saam. dëgg la nga xam ne moom waxuma la tuddee borom saam waaye ak njabootam jamono jooje ko foofu ci ko ci am tudd muy góor borom saam la la koy tuddeeloo loola it worma la joo xamante ni doxoon na diggante mm. euh, Cheikh Ibra ak mbokki Sëriñ Tuubaa yi ndax it léeg nga gis nit nag dikki ci sëriñ mm. mm. man koo defal lu ne waaye nag fu mu da koy jéem a sore leeg ay bokkam ngir mu mën a am li mu bëgg bi yàgg naa am c'est parce que bari na ba léegi ba fi may xëy ni sa sa intimité ak sëriñ bi tax nga maanaam saa yoo dikkee ci sëriñ bi doo bëgg ay bokkam di ko jege maanaam toujours lu koy xaaj rek ay ay bokkam ngay def moom ngay wax. dëgg la ngir lan. ngir yow bëgg yow ak sëriñ bi rek lay doon kenn du kenn du ci dara. xam loolu it yàlla dogal na dalutoon Cheikh Ibra. dëgg la nga foofu li ma ciy dolli. Mm-hmm. li la koy waral bi ñuy mm-hmm. liggéey bi ñuy liggéey raay bi boobu magal na. Mm-hmm. waaye keroog dafa ñëw ne doom àll leen mu ci jumtuwaay yi. jumtuwaay mooy peel. a doom yéen a nekk nii ñu ne ko waaw mu ne man it maa ngi nii. Mm-hmm. daan na ab doom gis ngeen ma ñu ne ko waaw Fall mu ne man it gis naa leen. Mm-hmm. daan na na ngeen ma seedal na liggéeyu Cheikh Modou Moustapha Mbacké gii agsi woon naa ci. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan daan na doom yoon bii fan la jëm. Mm-hmm. ñu ne ko Fall Touba la jëm mu ne ah doom léegi ma mat góor. wallaay ndeysaan léegi ma mat mag ñi am na ku ne ko ca Fall defar nga góor ba góor yooyu jàll di defari góor. wallaay ndeysaan loolu waxul loolu. waaw nee na góor balaay mat góor dëgg dugg bar sàq mën a nelaw. allahu akbar allahu akbar kon kooku ku kon kooku ku koy yaakaar. dugg bar sàq mën a nelaw. mën a nelaw. am na solo. nee na góor dëgg foofu lañ koy xamee. Mm-hmm, mm-hmm. waaye du ci kaw am na solo am na ah. solo baarakallah ah. baarakallah yàlla yàlla fayal ñu ko moom Cheikh Ibrahim di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala taas ñu mm. ci ab barkeem. xam naa ne kañ la fi jugee. 1930 waaw 1930 dégg naa eggoon na ci wax ne. waaw war ma ji war maaloon Sëñ Tuubaa nee woon na. su fi jugee buñ koy denc. nañ xool lañ nattal sëriñ bi ñu dolli ci ñaaram dëgg la nga xam ne moom waxtu wu ci nekk day bëgg a gën a suufee sëriñ bi sëriñ bi di ko féete kaw egg ci ne sëriñ bi danaa la liggéeyal ba sama bàmmeel di la liggéeyal liggéey boobu mu waxoon sëriñ Tuubaa yi moo ci moo moo moo am fi may waxe yow nii ñaari bayit mooy dangay gis ne mboolem yoonu mm. murid réalisation yi fi am yépp mm. waxtu wu ci nekk mm. boo xoolee rek daanaka waxtu euh, liggéeyu Cheikh Ibra ngi ci biir démb rek xaw ma barki démb la waa kër Cheikh Ibra doon jébbal Cheikh Mouhamadul Muntaxa caabi daara ji ci Mbàkke daara yi daara yi Seexul Xadiim ji ci mooy fi nga xam ne moo doonoon stade waaw waaw stade ñu jox ko Sëñ Tuubaa addiya mm, waaw Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa Cheikh ko njabootu Cheikh Ibrahima Fall ne leen defal leen ma fa def macha allah liggéey bu qualité macha allah yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla sàmm leen di ziyaare bu baax a baax mm. xalifa bi Sëñ Amdi Moodu Mbenda di ko ñaanal bu baax a baax sunu borom sàmm ko sunu borom aal ba mottali mbooleem ay naaram ñun suñu xalifa Sëriñ Cheikh Mbàkke mu Sëriñ Cheikh Tedd mooy Sëriñ Cheikh Tedd xalifa Euh, ki jur way juróom bu jigéen mooy taaw Cheikh Ibra alhamdulilah soxna Fat Jenn mu sëñ Baara Jenn ko jur maam Sooda Faalum Cheikh Ibra waaw <laughs> baarakallaa kon baarakallaa ñun foofu lañ bokk ñoo ngi ziyaare bu baax a baax a baax sëñ Cheikh Tedd ak mbooleem njabootu ko sëñ Baara Jenn gi yëpp ak mbooleem njabootu ko sëñ Baara Xuree gi yëpp uh, ci Touba Sam xam naa sëñ Moustapha xam naa daa mel ni waxtu wi daal xam naa ne moom moo ñu dul may nu ñuy tàggoo rek incha allah taala te jàppal ko idda beneen jataay incha allahu taala mu gën a yaatu bu soobee waaw sant nañ bu baax Mbàkke di leen gërëm bu baax ci temps d'antenne bi mm-hmm, mm-hmm. di la santaat bu baax jërëjëf di xam ne sa maam loo ko defal te awale woo ko ci sëñ Tuubaa rek def ga gis barakallah barakallah di sant askanu jóobeen gépp di ñaanalaat sama baay bi di baay Matar barakallah ak soxna su mag sa fa des ak mbokku taalibe yëpp di ñaan suñu borom barkeel fii te yàlla gën a ñu defal taw ñu gën a amaat ay jotaay yu gën a yaatu ci barke Cheikh Ibrahima asalaamaaleykum wa rahmatulah Moustapha Diop ñoo ngi lay ziyaare bu baax a baax yow it baarakallah di ziyaare mboolem koo xamante ni yaa ngi topp télé bi ci mboolem seen i programme di sant bu baax a baax a baax ci jàppandal gi ngi ñu jàppandal ñu a séq ak yow jotaay bi waxtaani saamaam ah, ma Mamour Ndaw laa dégg muy wax baat ah, ah, a baax moom it la wu yàgg a a a euh, di ñaan bu mm-hmm. baax a baax sunu borom gën a sa dënn waaye gën njariñ li nga ëmbal lislaam bi suñu borom suturaal la ba nga jottali ko incha allah taala ñëpp alhaaji Malick Faye moo nekkoon ci wàllu xarala gi Serigne Makhtar Ndiaye ay ak Abdoulaye ñoom ñoo doon coordonné émission bi ñoo ngi leen di ziare bu a a baax a doon amee ci seen télé réew mi TV seen bokk sëñ Baara Mbàkke ngeen àndaloon ci kàddu gi lu ci jub yàlla la lu ci dëng matadik doomu aadama la in uridu illa al islaha mastataatu ma tawfiqiya illa billah Ahmad Souleymane bi sarfi almasiyaati kay ma taqoo da simaamin bir rasiyaati adal idasdaada xalbi kunna bahjatiha wa wajaxat li hadaaya bilmabaraati أمسدت طيب نفسي كي أميل لها وولت ميل قلبي الهديات وخاطبتني بما يدعو لغذبتها وأزغرت صدق وعده بالرقيبات ثورا تديني وتوليني دوائسها وتارة ليتهدي بالبشارات لكن